seen marché dana jàppal sénégalais yi en dana jàppal sénégalais yi en bu métti boo xamante ne ma xam yow lu la sénégalais yi def ah wala li nga mën a tudd Sénégal la yow sa papa moo ne la boo ñëwee Sénégal mu rendi sa ndey yow kay sa papa nga waroon waxal sa papa moo ne la boo tegee sa tànk mu rendi la mën ko saaga rek lay def danoon ba nga saaga saaga rek lay def tuubal nga dellu ci yàlla tuubal nga dellu ci yàlla ku la ko waxul da lay nax weesu wul tuubal nga dellu ci yàlla tuubal mat nga doo xale koo commencé koo maase noonu mu ngi yor jabar commencé woon yor na jabar ñoom sëñ Bada ñi ñëpp yaa leen mag ñoom sëñ Bada ñi ñëpp yaa leen mag ñoom ñëpp yaa leen mag na doo xale natt nga sa soixante ans natt nga sa soixante ans wàññi ci lii nga nekke te nga dem tuub nga jàkkaarloog yàlla dawal nga baali bi am nga 60 ans demal nga jaamu ci yàlla ñoom sëñ Bada ñi ñëpp lañ la leen a jur ñii ñi am aadamoo ñi ñëpp say doom lañu say sët lañu. fal nga fi tuubal tuubal tuubal nga dem jàpp nga julli tuubal nga dem jàpp nga julli lii nga nekkee boo ci dee rek tuubal nga dem julli te jàpp ah demal nga tuub sa yaay mënta nekk nekk caga di naan sangara di tux yàmba ba dee yow nga bëgg a sa yaay dafay tux yàmba di caga di ba dee soo ci nekkee yow ca góor jigéen gi boo ci dee sa yaay ma nga nee ñuy ñàkk ndeyam chaque jour yaay ma nga nee ñuy téegal ndeyam ay rappal yeewoo sa coxatu nday. kii rek nag kii di daqaar ndayam sa bu sa yaay cagatu la woon yàmba naan sàngara la sa yaay nekkee woon Sénégal bu yàmba naan sàngara danaan samay maam man xamal moom la sa ndayam da ngay duur voilà da man xamaloo ma gat mais dama xam-xam sa yaay demal nga julli demal nga tuub demal nga tuub jigéen ji yow lakk nga sa soixante ans lakk nga mani da ngaa ñëwoon tuubal waaye yow yow loo li nga suuf ñëpp xam nañ ne da ngay duul mais ak commentaire rek wax nañ a yow li ngay wax yëpp nañ fi expliqué da ngay duul yow nangu léegi na yaa tuddee xale bi mënoo continué mënoo ko woon nangu ci li ngay def nangu day yombali yow nangu nga léegi na gën a yow la ah tuubal waaye ragal nga nekkal mag tàmbaay nekkal mag tàmbaay nekkal mag tàmbaay bàyyi xale yu ndaw yi ngay influencé xale yu ndaw yi ngay influencé boo jigéen di leen woon ay jamaa di leen woon te lépp Ah, waaye ma ne saxaar rek mais bàyyil xale yi ngay influence xale yi moom dootoo leen fi influence boo leen fi influence te ma mbay boo leen fi influence te ma kat sa cottu nday boo si influencé te xale yi ma toog nga sa ndey maa ngi xaar ba yi maa ba nga influencé xale ma teg sa ndey booy taal sa live may dugg booy taal sa live may dugg si live waaw booy taal sa live may te may boo fi influencé te xale yi ma kat sa boo fi influencé te xale yi ma teg sa kattu ndey yow nga nit ñi trop ci doomu jàmbur yi di teel a xale yëpp yàqu nañ ndax yow xale yëpp yàqu nañ ndax yow ah, bi la yaa sa sa cottu mbay ah, ah bi la yaa sonal nit ñi nag boo fi influencé xale yi rek ma kàcce la fa nday yow sa yaay mën naa nekk ñu koy mbugal pareegu ñu yow nga bëgg a deewati sa yaay ngi dee ci naanum sàngara tax tax cagat yow nga bëgg a dee ci góor jigéen lii mën naa ne waaye yéen yéen a yàq xeet bi waaye sa xeet bi ñu baaxee nday sànn mais yàq nga xeet bi ba kenn bu ko fi leen a dégg bi laa yaa teg sa copp nday nag Pape Mbaye nag yaa sonal nit ñi nag ah boo ko boo ko influencé xale sa tuunu nday laa def boo fi influencé xale na ko nday laa yaa may dégg ma la boo si influencé ko xale yi ma tijji tijjee sa lëfal mbay yow sa sal mbay waay yow yaa sonal nit ñi ah maa ngi xaatu ba nga influencé fi xale yi maa ngi xaatu ba nga jëndatu sa bisu balaa yi rek naan jamaa soo jëndatee sa bisu balaa yi naan jamaa la rek ma teg sa mbay xam nga ni yow doomu xaram ba nga jëndatu sa bisu balaa yi naan jamaa maa ngi xaatu ba nga jëndatu sa bisu balaa yi naan jamaa la sa sal mbay ah yow kii kii ban la am na yaa yaa violé doo man sa violé woo ko soo viole woon doom dina génn woote ci rajo Sénégal yëpp ne yaa viole doomam ah yow dangaa bon waay te ñàkk jom te nekk xaj te nekk imbécile ah lakk nga soixante ans bañ a tuub ñoom sëñ Bada ñii ñëpp say sët lañ ñoom sëñ Bada ñii ñëpp say sët lañ waaye nga nekk góor jigéen boobu góor jigéen te jël di kan xam yow yaa jàngal xale góor jigéen ñëpp yaa leen jàngal góor jigéen boo ko fi defatee ma kat sa ndey laa la wax dégg nga li ma la wax boo ko fi defatee boo woowat bu ko tee ci kii bi di génn ay bijoux ci bijoux extras di wan xale yi naan leen jamaa la ma digg sa lëfal ndey laa la wax dégg ko muy kii dégg nga oh, dégg nga sax ñoom eh, man kenn màcc di nag man ku mën laa la eh, tegoon mais bi ma la gisee ci yi ngay def laa xam ne doomu xaram dëgg doomu xaram dëgg eh, ah maa ngi xaarati ba nga defati ko maa ngi xaarati ba nga jëm ci biir ci ñaar sa xale Sénégal yi. bu gisee xale yëpp bëgg a nekk ay góor jigéen ah dégg nga bijoux balaa yi kii la dugg pour jamaa ay bijoux balaa billahi ay bijoux balaa lay yor bi benn jamaa day napp ndeyam. gisu leen ko benn yoon mu jënd machine jamaa bi teg ko ci écran bu mag bi. dangay duul teg ma ci écran bu mag waaw teg ma ci écran bu mag man kan ma fi ah dangay duul. ba dara bu ko teg ci benn écran bu mag day nekk ndeyam day dëgg ndeyam bu ko teg ci benn écran day dëgg ndeyam xool ko ak ñaawaayam balaa muy ko keese sa yaram bi ba mu weex xool ko xool ko. yow li ngay def ku ne mën na ko li ngay def ku ne mën na ko li ngay def ku ne mën na ko li ngay def ku ne mën na ko li ngay def ku ne mën na ko. lii ngay def ku ne mën na ko daa ñaa ñaa ñaa ñaa ñaa ñaa ñaa ñaa ñaa ak sa yaay mën naa dee ci cagatu nga bëgg a dee ci góor jigéen ñii ñoom seen seen sër gi maa ngi moom àdduna dañ leen nar a lakk sa ndey mën naa dee ci góor sa ndey mën naa dee ci taxum yaam ak naan tàngara yow nga bëgg a dee ci góor jigéen sadaka kay bu ndey ji bonee doom ji yow tuubal tuub weesuwul tuub weesuwul tuub weesuwul tuubal da nga jàkkaarloo yàlla tuub weesuwul ñàkk nga jom D'accord. fayda ni nga ñàkkee fayda sax dafa ñaax Eva daana daana na na na na na amoo loo wax amoo loo wax dañ laa jàpp amoo loo wax amoo loo wax dañ laa téye ci poñ tey moom dañ laa téye ci poñ waaw te Coura Macky dina fekk sa kër kat sa ndey tey jii tey dugg nga ci vie privée bi bu lay boo nga woo ko tu woo ko léegi léegi nga jéggalu ko parce que ñemewu leen ko ñemewu leen ko ñemewu leen ko la leen di fekk ay sitam tey def seen ndey. dégg ko soxlaa nga ni yëpp ngay wane li yëpp ngay wane dégg ko may soxlaaw ma ñëpp ngay wane soxlaaw ma ñëpp ngay wane dama ne soxlaaw ma ñëpp ngay wane intéressé wu ma ndax ni ko yoree laa ko yoree daw ni ñu ko yoree laa ko yoree bàyyi sa yi def arrêté xale yi ndaw yi ngay influencé loolu wax ah waaye yow man damaa soxla jàkkaarloo sa kanam bu salte gii yow sa kanam gi parce que boo téléphone doo ko génne. est ce que kanam gi du tilim bi. est ce kanam gi dafa tilim ko faa jàkkaarloo sa kanam bi ñàkk nga jom trop arrêté bi yi ngay def ñàkk nga fay la trop. ñàkk ko mën a doon daal de dana dana dana ah ñàkk nga jom de soo demoon léegi sax nag loo ci xamul sax ami laa sax Facebook demal Facebook nga laay fal sax foofu lay gën a neexee xaaral ma ami laa ak yow Facebook da nga ñàkk fay la. gën a sëy yi nga nekk da nga tuub. gën a sëy yi nga nekk da nga tuub. taala sa data am génn ci sa yi nga nekk te nga tuubal tuubal tuub weesuwul sa ndey mën fa nekk di ca cagatu ba fay dee di tux sàmba man doo xanaa xamoo bi sa yaay dee xanaa xamoo yow bi sa yaay dee man dama ne woon dañoo waroon laxas yàmba bu mag teg ko ci bàmmeelam parce que fii tubaab yi loolu la ñuy def su nit bëggee dara ba dee dañ koy teg ci buntu bàmmeelam yow bi sa yaay dee dama ne woon dañoo waroon teg jàmbaar ci bàmmeelam ndax fii tubaab yi yooyu la ñuy def bu sa boo bëggee dara ba dee dañ koy teg ci sa bàmmeel ah sa yaay tux na yàmbaar cagatu na ba dee sa yaay cagat ku méttee ko rey yow góor jigéen nga nar cee dee ah lépp moo ñu naqari ah arata senyiga ne arata senyi arata senyi da nya nya nya nya nya eva nya nya nya nya nya nya mutum senyiga da Niko, eva na na nya nya eva de nya nya nya jannat senyiga ne bayu xale yi ndaw yi ngay influence xale xale xale góor xale yi ndaw yi ngay influence bayu ko lu ci duul lu ci bëri du or li ngay takk lu ci bëri du or mim réew lu ci bëri du or li ngay takk lu ci bëri du or da ngay jaxase da ngay jaxase gis nga ñun fii la gis nga ñun xam nañ lépp mais ñun xam nañ lépp gis nga waa Sénégal ngay gondi mais man mënoo ma gondi ñu ci bëri di or ñu ci bëri di or gis nga yow da ngay takk ñaari lam yenn wàllu gi takkalte ne patt bi la da ngay duul takkalte ne muut bii nekk Dubaay ci bëri moom ngay gàccoo di duul di dajale waaw ah, bañ nga ko ba bijou blanc yi ngi koy jëndee Dubaay moom nga koy jëndee naan sama jamaa yi sama jamaa yi sama jamaa yi xale yi jamaa génne sa dollar yi nga xamante ne yàgg na dañ la ko mayul am dangay ngay topp ci xew di wayaat ñu di la ko jox nga di ko dajale di ko influencer xale yi ngay def ah arrêté yi ngay def bu defee euh, euh, société góor bu mag a mag ba seen seen seen seen kii bu mag a mag ba nekk États-Unis di la jox xaalis pour ngay fëcc xale yi ndaw yi ah seen seen seen kii bu mag ba nekk États-Unis di la li ñu doon fay commande nee nañ nga jalo quatre cent ay yow man du ma wax du ma wax man du ma wax man mel ma ni man bu ma defee léegi li nga def nii ma feebar man li nga def nii du ma koy def di feebar li nga génne nii man du ma ko génne woon léegi feebar